mbokk yi tax na Yaatal Vision dal leen ak jàmm ci xibaar ñu di ko génn ci la gën a fës ñu daal di koy door nag jafe-jafe yi nga xamante ne bii sénégalais yi ñu ngi koy dund xaat mbaay fi mu toll nii loolee nag ëlëm na ñu bëri ginnaaw bi nga xamante ne bii nag ñoom seen yaakaar yàqeeku na seen yaakaar na jàpp na ne kenn képp la muy ki xamante ne bii nag jàpp na ne moo jiite réew mi la di Macky Sall noonee nag ni démb lañ ko daal di foofee ci assemblée nationale armée ba nag ñu xamante ne bii waroon nañ koo voté foofee nag ca di wax ne du ca dal ci wat jëmul ci loolee tax na gendarmerie fees fa dell mel ni ku jëm ci ab xare ngir daal di mën a nag daal di saytu nag li nga xamante ni mooy mbir moomale loolee nag ñoom bi ñu dikkee lañ leen daal di wàcce ñu daal di toog seen place ngir ñu daal di mën a amal liggéey ba comme noonu ko bëggee foofee ci assemblée nag ginnaaw ni ko nag lan daal di xamle nag ne ki nga xamante ni bii moo di président Macky Sall nag fii ba la bi fii ba fukki fan ak juróom ci weeru décembre muy tombeek quinze décembre ci lay man nag dal di organiser waat ay élection fii ci biir réew mi di Sénégal ginnaaw bi nga xamante ne bii nag parrainage jàll na conseil constitutionnel DCE waaye CDC ñoom ñi nga xamante ne bii nag ñoom ñëpp nag jàll nan loolee nag gars yi daal cay mer ba futtu ngir nag jafe-jafe yi nga xamante ne bii doon nañ ko dund ci lu mel noonu népp loole nag ginnaaw bi nga xamante ne bii ñoom jàpp nañ ne nag kii di mag Sall nag dafa dem ba ki nga xamante ne bii moo di candidat bii di Amadou Ba nag xamatu nu mu koy def ba tax na mu ba daal di bëgg retiré wu te xamante ni moo di candidat boobee loolee tax nag mu daal di wax ne élection yi des koy dàq ba jëmmi jamono.